bal tàkkul ngir yiir ngir ñi doon gàddaay ci yoon yu metti dogal wàcc am ñu bari ñoo xamante ne nii raje nañu leen ci alkaati yi ñu tollu ci junni ak ñeenti téeméer ak lu teg am ñu ci faatu ndax dañu xaru am ñu seeni jaboot tas ndax coono ak jafe-jafey àdduna am ñu si yàlla may bakkan ba nëgër ni mu am loo xamante ne ni taxawaay la bu ñu ngi koy sàkku ba waral ñu leen di faral di dégg bokk na si ñoom ki jiite seen kuréel gi nga xamante ni moom moo leen jaboote jamono jii muy euh, commissaire Sadio moo commissaire ñu ngi lay jégalu si guddee bi di la nuyu di la dalal si jàkkaarloo bi. <coughs> maa lay nuyu. Euh, di la jéggal parce que un bon militaire depuis neuf heures et laa fi nekk. très bien parce que yaa moo convoqué dix heures moins dix. absolument. Euh, di pour les la télé. di nuyu ñi ma fi toogal. oui fekk ko ci Birima. Papis sama turandoo bu baax. Mm. n'est-ce pas professeur. ak euh, Charles. très bien alors li ëpp solo mooy il est clair que am nañ fi ay doyens comme Charles Faye mais. am na ñu bari ñoo xamante ne nii ñu ngi juddu cent 1980. Mhm. militaire radié ça ne leur parle pas. policier pardon radié ça ne leur parle pas est-ce que mën nga dellu siwaat léegi ci lan moo waraloon lan moo xewoon ba jamono jooju Abdou Diouf nguuram jël dogal génn ñooñu ci biir police lu xewoon. Euh, li xewoon euh, sawar naa di ci waa et puis sawar naa toog ci plateau bi sax parce que. Hmm. Euh, histoire boobu d' accord def na 30 ans. Mhm. jamono yi ñu ngi si 30e anniversaire. si tey. waaye c' est des bribes d' histoire. Mhm. donc c' est des récits parcellaires. di mhm. tubaab di wax maanaam. Euh, amuloo loo xam ne nit tënk na ko ba nit ki bu ko xoolee bu ko jàngatee rek mu xam yëfi ni mu demee. je crois que tey jii nekk si plateau bi occasion la xëy na xëy na du léppay leer sax. mais dina am lu ma ci leeral parce que ab bi dinaa ci benn téere mhm. boo xam ne ay détails ngi ci mhm. li xewoon nag jamono yooyu yàlla dafa def aussi mhm. man ma nekk si njalbeen ba nekk si càppandaw ba c'est-à-dire que j'étais au début et à la fin parce que ki waral mbir mi bi ñu koy indi commissariat central man maa doon chef section police judiciaire mu sûreté urbaine donc man lañ ko présenté bi yëf yi di jeexee maanaam bi policiers municipaux yi di dellu police d'état man kot maa desoon comme commissaire de police. Mhm. Mhm. donc man maa delloo police d' état. Mhm. ñu si des yëpp ñi faatu na ñi retraité loon donc li xewoon nag euh, ci tënk mooy 30 euh, janvier ci guddi 30 janvier ba 31 janvier dafa am benn waay bu ñu jàpp bu ñuy wax Baba Dia. benn receleur. fekk balaa boobu waa fas doo def petition di wax ni am na ku leen sonal am na ku leen sonal mais jamono yi taluñu ko woon. parce que dafa am benn kilifa bitim réew. bu hmm. ñëwoon fii nekk fii. Hmm. kooku si këram mu am cambriolage bu ñu fa def. Hmm. sàcc ay takkaayu jabar ji. ñun ñu nekkoon si loolu. parce que autorité yi dañu joxoon ne dañoo bëgg ngeen jàppale nu mu gën a gaawee. donc ñun taluñu woon li waa Fass di def mais yàlla def na trois jours après quatre jours après ñu jàpp ñooñu. mu am man deuxième pétition ci lañ dem def opération boobu ñu jàpp waa ji indi ko police. bi ñu ko indee police man lañ ko njëkk a présenté parce que sama kilifa bi dafa amoon permission vingt quatre heures. bi ñu ko indi ma gis ko muy soox ma laaj ko lii laa la mu ne ma def am fettu Saloum ma ne officier de police bi dama bugg nga entendre ko ci fettu Saloum bi. ñu commencé ma jox officier de police bi mu def enquête mu def fa quatre jours bi mu defee quatre jours ñu déféré ko bi ñu ko déféré mu dem ci procureur mais mu am métit. professeur euh, procureur yóbbu ko pavillon spécial. je crois que c' est jours après. Mhm. la gaañu. léegi bi mu gaañoo ñu def expertise autopsie ne mort naturelle. Mhm. waa famille bi day déedéet. Mhm. ci du mort naturelle ñun dañoo dégg nii da ngeen ko mettital. léegi ñoom ñu demandé contre expertise. contre expertise boobu nag aboutir ne benn professeur bu ñuy wax. xaw ma ne mun naa tuur tuuram wala mënuma mm-hmm. tuur mm-hmm. Isidore Boy bu nekkoon Dantec conclure ne que traumatisme la boo xam ne moom moo entraîné faatu bi maanaam luñ ko teg la waaw luñ ko teg la mm-hmm. alors rek ci lañ def procès instruction mu duré quatre mois euh, quatre ans c'est le vendredi 10 avril la ñu joxe verdict bi ñu condamné policiers yi juróom-ñaar la ñu war a deux ans ferme ñu war a fay six millions waaye li leen condamné ferm yëpp teewuñu leen defuñu leen su mandat dépôt ñoom noonu la ñu génne librement ci euh, euh, tribunal bi bi ñu génne nag ils étaient paniqués parce que dafa am disposition yoo xam ne ci statut bi bu buñ la tëjaloo rek dal lay dàq. waaw donc ñu dem seet seen kilifa bi nga xam ni moo nekkoon structure humaine ñu expliqué ko ñu wër wëlbëkkatu dem seet kilifa bi nga xam ni jamono yooyu moo doon sama kilifa man ñu dem expliqué ko ñoo ñu xaw leen a defal. ne muñ leen autorité yi dinañ seet ñu koy régler mhm. malheureusement c'était le vendredi samedi dimanche ñu mhm. sànni ay tract ne à partir de lundi léegi nañu def marche mhm. lundi si lañ def une première marche marche policier marche policier marche ndaw rek waaw damay expliquer aussi que c'est une infime minorité ndaw rek waaw lu tuuti la vraiment ñoo def marche bi jaar buntu palais am na ñoo xam bi ñu àggee palais sax am na lu ñu kii tuuti ah, sifflet tuuti dem ba ministère de l'intérieur foofu mu xaw a tàng parce que bëgguñu woon dégg sax ministre bi finalement directeur général moom la ñu may nopp mu wax ñu dellu si waat commissariat central ci ngoon gi ministre bi recevoir commissaire de police yi ci biir waxtaan mu xaw leen tuumaal sax ne dafa mel ni ñu xaw a far opposition moom ministre bi mu am commissaire bu jóg tontu ko tontu bu ñagas après ñu ne ko monsieur le ministre mbir mi bàyyi ñu ñu réglé ko ministre bi à l'époque Ibrahima Wane Ibrahima Wane ñu ne ko may ñu ñu réglé bi mm. bàyyi ñu ñu dem seetu suñu gars ñu waxtaan ak ñoom mm. ministre bi ne ah de façon man jël naa décision wax naa gendarme yi ñu ñëw pour remplacer la mm. ñu ne ko bul def loolu ñoom commissaire bi ñuy wàcc la yi tase gendarme yi di yéeg di dem bureau ministre si guddi gi ñoom ñu dem ci camp yi waxtaan ak nit ñi dem gis ay doyen moo tax doyen am solo ñu joxe rassemblement le lendemain au commissariat central doyen ñëw waxtaan ak alkaati yi ak commissaire yi ba finalement alkaati yi bàyyi Hmm. mais bi ñuy dellu di jël seen poste de travail habituel. Hmm. ñu fekk fa gendarme hmm. ci lañ départ ñu commissariat central organiser waat beneen marche. marche boobu nag ñu ngi leen di stoppé place de l' ah, foofu moo am benn peloton gendarmerie. ñi taxaw ñi sukk yore fetal tiim leen. 11h voilà 11h. ci la alkaati yi fippu ne ñi gënuñu leen góore gënuñu leen xam liggéey bi ñu dem commissariat central daj magasin fetale jëli ay fital waaw jëli jëli ay fital ñoo ba pour euh, place de l' indépendance. Mm. janoog gendarmerie janoog gendarmerie heureusement amoon na ay commissaires yu fa nekkoon colonel ak ñu foon ku ñu surtout colonel mbay Guèye ak officier gendarmerie ñoom ñoo nekk di jàppante di di di di leen indi à la raison. Mm-hmm. ba ñu fii daal calmé wu policiers yi replié waat dem commissariat central. kon keroog alkaati yi ak gendarme yi xaw nañoo fitalante xaw nañu felante te maa ngi fàttaliku. Mm. boobu maa ngi woon commissaire euh, bu Tivaouane. Mm-hmm. dimanche la woon ziara général maa ngi fàttal ko maam Abdou ne am na loo xam ne yàlla woon na ma ko bu ma sañoon daal ngeen sarax. mu tegtal sarax yi nga xam ne dañ ko war a génn foog naa loolu gisoon. tigi te foog naa sarax sasu bu génnul woon euh, musiba doon na faam. Hmm. te li gën a garaaw mooy bi ñu tiimante gendarme bi ak policier gendarme yi xamuñu woon ne am na ay alkaati yu nekkoon civil yu leen waroon. Hmm. donc bal bu tàkkoon rek musiba moo doon am. Hmm. yàlla def na jàmm am. ci ngoon gi. la ñu jël euh, euh, décret 489. suspendre tous les policiers. ñu convoqué assemblée générale assemblée nationale le lendemain mercredi à 10 heures. Euh, bureau politique euh, parti socialiste convoqué son bureau politique la lendemain aussi à 18 xam naa hmm. après pour rendre compte des travaux de l' assemblée. oui keroog assemblée nationale wax dëgg yàlla <laughs> poli député PDS yi jàppale nañu parce que Marcel Bassène ak Boubacar Sall. Hmm. insisté nañu. ne bu ñu sañoon ñu ngi leen di ñaan li bu leen ko woti mhm. li musiba la mhm. mais les gens euh, boo xam na rek comme on dit la politique la majorité euh, mécanique, mécanique comme d'habitude voilà ouais. effectivement mm. bon ils ont voté euh, mhm. la loi mais li ñu gën sax jamono yooyu parce que léegi disons on a oublié hein, mm. le pardon a effacé ouais, les aspérités de la animosité quoi justement parce que xam nañu sax xëy na sax du ñoom sax xëy na yàlla la woon quoi parce que yàlla leen ëpp doole mooy bi ñu woote loi ba pare dañ ne léegi dañuy def motion de félicitation mm-hmm. par acclamation debout. Mm-hmm. vraiment ça a été une qui nous avait un peu choqué. un peu choqué quoi mm. parce que je, on se disait que mais ñii xanaa mesuré wuñu sax la portée de l'acte qu'ils sont en de poser hmm. non seulement il y avait ces 1200 policiers yi ñëw suspendu donc radié c'est tous les policiers qui ont été radiés cest à qui ont hmm. pas été réintégrés hmm. c'est ce qui n'avait pas été réintégré c'est les maintenant je suis à votre pour d'autres informations. Jean Collin a joué un rôle décisif waaw mais jamono yooyu tout le monde savait nous le savons nous étions dans l'appareil d'État. Mhm. nous savons que vraiment c'était l'homme fort. c'est nous qui allons en parler. waaw très bien te même procédure yi sax. ni ñu ko waroon defee defee ñu ko bon procédure yi. c'est que li ñuy jooy ñun. Mhm. am na loo xam ne il faut que ma wax ko mu leer. Mhm. parce que je suis d'une honnêteté intellectuelle qui fait que vraiment bëgguma. mooy c'est-à-dire que alkaati génn ci mbedd bi amuñu woon droit génn ci mbedd bi. d'abord. c'est contraire au statut. très bien. waruñu woon génn. benn lim aussi lim bu ndaw la woon. n'est-ce pas Bien. mais en fait li ñuy condamné mooy manière bi ñu ko defee parce que loi bi dafa ne ki nga xam ne moo la fal moo jël décret wala moo jël arrêté nommé la kooku rek moo am sañ-sañ sanctionné la mooy dëgg très bien très bien qui a le pouvoir de nomination ouais. a pouvoir de sanction mais loolu bu ñu ko defoon xam nga fu ñu doon day dañ doon jaar jour tribunal militaire te bu boobaa boo jaar tribunal militaire tu as la possibilité de te défendre mais en prenant cette voie-là on n'a plus la possibilité. et Jean Collin avait reconnu. Mhm. parce que devant les députés. Mhm. il avait dit. si on avait respecté ceux du français. Ouais. ça dire qu'on n'a pas. respecté ouais. Mhm. les gens auraient dû être devant un tribunal militaire. bu ñu defoon li dëgg li dëgg. li yoon bu ñu toppoon li yoon wax yóbbu tribunal militaire. parce que effectivement les faits étaient là flagrants. mais dina am xam ne duñ leen dàq dañ leen di blâmer. Mm-hmm. ñii ñu jox leen avertissement. Mm-hmm. am na ñoo xam ne peut-être seraient très bien professeur. ah waaw événement yooyu de wax dëgg yàlla def naa ne c'est l'une des pages les plus douloureuses et les mm-hmm. plus sombres de l'histoire euh, du Sénégal oui. en bu maay def première année au département de philosophie fii à Dakar donc euh, am na lu ma ci xaw a fekkee tuuti donc mu nekk euh, événement yoo xam ne mais li ko rendroon possible moom mooy problème bi Khalifa métti nañ ko fu mu mënti yem. absolument ay nit dof nañ ci nga baal ma ci waxin. ah non ay sëy tas nañ ci. Mm-hmm. ay njaboot sànku nañ réer. Mm-hmm. parce que dañoo jëkki di jour au lendemain mais ñu nekk ci am na ñoo xam ne sax waxu ko logement yi ñu occupé woon. Ah. da koy fàttaliku amuñu woon fu ñu jëm. mais dañoo yeewu dàq leen ay xaj. les cas de suicide aussi. Euh, kooku moom relevé kooku moom daal ci leeral mhm. c'est-à-dire que kooku. da nga sant général Mamadou Niang. joué na si rôle bu baax a baax a baax. Mhm. parce que bi GMI ñëwee di leen dàq moom dafa doon romb doon xëy mu gis image bi euh, bëtam taa. Mhm. moom ci boppam. mu téléphoné benn kilifa. ministère des affaires étrangères dama mhm. tudd turam mhm. kooku moo tilifa téléphoné présidence de la république mhm. jàll si kaw Jean Collin d'ailleurs Jean Collin n'avait pas apprécié ça ci la motard ñëw bi motard ñëwee mu ne oh, oh, chef GIE bi on vous donne instruction vraiment de réplier ko ci la ñu arrêté yëf yi foofu très bien très man euh, li may li may wax mooy au-delà de événement boobu ñu fexe ba laajte lan moo rendre possible cela parce que ay alkaati comme ni mu ko waxee. c'est des fonctionnaires. mais man jiite président de la république moom mën ne ràññi. donc du nekk loo xam ne Massamba Mademba moom moo mer moom moo frustré moo def nii moo def nii moo def nii. ce qui avait rendu possible ça. mooy personnalisation du pouvoir nañ ko wax. moo xam fa mu nekk Jean Collin. à l'époque nekk benn. xaw ma nu ma koy waxee. président bis. à la limite président bis à la limite par les pouvoirs déraisonnables. Mm-hmm. pas que li ko constitution bi jox. Mm-hmm. mais yi nga xam ne moom moo ko octroyé woon. Mm-hmm. di régenter police bi mais mel ni comme. donc j'ai li ñu ci war a jàngat mooy. attention waratul mën a nekk un individu. quelle que soit station entre guillemets bi muy mën a occuper quelque que soit nu mën a jege ki nga xam ne mooy réew mi. bu mën a. am ay doole. yenn prérogative yi. parce que ci dérive rek lay mujj. parce que nag bu fekkee ay destin wu réew. Hmm. mu ngi tegu ci humeuru Masamba wala hmm. humeuru Mademba. sa hmm. devient extrêmement grave. la radiation mais loolu c'est un acte suprême beneen jàngat bi man épisode bi ci député yi moom ma gën a interpellé. parce que boo ko seetloo mu ngi mel ni ba léegi. régime yi fi succédé wu yëpp gars yi les leçons de cette histoire là. parce que bu fekkoon ña ne woon keroog assemblée. xamoon nañ ne plus de deux mille famille lañuy ñuy bousiller décimé ñii dof ñii dee. je ne pense pas que par acclamation waxuma wote mu jàll de xalifa mm-hmm. mais par acclamation. dañu ko rus abattoir. Mm-hmm. non pas pas du dimension rus xalifa. Mm-hmm. plus de deux mille pères de famille. multiplier ko par cent wala par deux cent que tu supprimes. Hmm. ñu nekk ci mbedd mi fuñ seen dëkkuwaay di taxawal amatuñu lekk amatuñu naat man lañ ñuy dof ñuy ràngate. Hmm. yow nga ñëw wote ko comme lettre à la poste donc debout. Hmm. par acclamation. mu joxee résultat. maanaam tudd na léegi Boubacar Sall. il a cité deux exemples boobu euh, que Boubacar Sall moomu. Hmm. c'est la moo tax ma koy wax nous saluons sa hmm. lu tax ma parce que boobu man maa ngi ko école primaire. Hmm. te boobu maa ngi Thiès. te boobu maa ngi fàttaleeku bi bi ñuy indi nit ñi. ay lacrymogène dugg seeni yaram. sama turandoo moo leen doon faj. ca hôpital bu dépôt. keroog laay soo gis deret. Mhm. si anam yooyu. Mhm. c'était un lion keroog sànni la lacrymogène ba sànni ko si gétt xaram. Mhm. fala fala jëm c'est un monsieur. waaw le 25 février 1988. ba je bi reer jaxasoo boo naan. Euh, baal ma ci waxin bi maanaam jeunesse malsaine. je vous ai à l'œil nangam nangam. Euh, mais c'était celui-là. professeur ce que j'ai à préciser. oui qu'on c'est là que on est ici pour évoquer l'histoire la mémoire. la mémoire par devoir de mémoire si loolu lañ nekk nii. mais également. il hmm. ne faudrait pas que les gens fassent la l'amalgame. Hmm. c'est-à-dire que hmm. il faut situer les responsabilités. très bien on cite Abdou Diouf. parce qu'il est responsable. parce que c'est un projet de loi. qui a quitté. le palais pour aller à l'Assemblée nationale. voilà donc. si il voulait ce projet de loi là effectivement ne serait pas donc. mais bi loolu amee il y a des responsables socialistes. très bien en un. jaru ko xam ne xar nañu seen tànk tubéy pour loolu ba ñu am. pour loolu ba ñu am et ils ont condamné. donc cest à par devoir de mémoire qu'on mais quand on est aux on a des responsabilités qu'il faut assumer. tigi amul on a j'ai pas froid j'assume l'entière responsabilité de ce que je dis. parce que je me considère comme suffisamment responsable. dëgg la dañ ci war a am ñaaru jàngat. absolument sans trembler kenn waratul. Mm-hmm. am droit de vie et de mort. parce que constitution bi jox ko kenn. Mm. moom moo permettre dérive yi. ma ne ñaareelu jàngat disons la yow yaa ko fi wax sax. Mm-hmm. froidement. Mm-hmm. une assemblée nationale nekku fi. Mm-hmm. pour lu ñëw mu les yeux fermés mu voté ko loolu dañ ko waroon a retenir parce que épisode la boo xam ne mais combien de famille ñoo ci tas ba heure bi leneen lu ma ab alkaati wax professeur nos meilleurs experts en renseignements généraux mm -hmm. on les a décimés par la volonté de solo homme ñaari jàngat la yoo xam ne boo léegi dans notre histoire dafa war a ko léegi ñu éclairer très kenn waratul am mm. benn doole bi am benn sañ-sañ bi assemblée nationale bu ñu la indi les lois voté ko mm. nanga mesurer toute la responsabilité et les implications. dama koy wax parce que maam Abdou daan ko wax comme ni nga koy waxee nii. boo gisee ma def relation bi. c'est comme si on n'avait pas retenu les leçons de l'histoire c'est pas parce que dama cee bokk. Mhm. dernièrement dégg ay enseignants yu ñu proposé à la radiation. Mhm. yàggul li ba lay wax ni. mu mel ni donc les leçons de cette histoire là on les a pas encore retenues. Mhm. heureusement ñu ngi koy gërëm Al Amin. intervenir directement ne chef d'État li ngay ay toroxal ay famille jël ay jàngalekat leen tëj ci ay kaso di woote ci ay commissaire waxtaan leen ngeen jubbo ay gor lañ ngeen di ay gor. donc loolu bu mënee am 30 ans après qu'on propose des milliers de Sénégalais à la radiation. ça veut dire qu'on n'a pas retenu les leçons de l'histoire dëgg la merci prof merci prof Bouba waaw mais Birima maa ngi ñëw si yow xam nga lu xew 80 euh, ñaata la 7 7 waaw quand même yàgg na mm. euh, c'est vrai que 30 ans Birima mi ngi xool professeur naan mais mag la <laughs> mais en fait en fait en réalité euh, dafa am aussi loo xam ne relativement pour man peuple bi mm-hmm. Sénégal am na lu ñu def mm-hmm. ci réew mi lu am solo dëgg la parce que tout simplement 2000 quand sénégal yi dañuy jóg changé. Mhm. changé jël fi régime indi régime. 2012 dafa am benn jour bu tudd le 23 juin boo xam ne assemblée da doon aussi nar a posé bu leen bàyyi woon acte boo xam ne dafa nar gën a salteel mhm. suñu suñu fii ak 30 ans nañ ci toog di di ci wax. Mhm. Euh, réew mi ñoo jóg. keroog bu ñu nit ñi toogoon seen kër. tigi ah peut-être que. Euh, dëgg la kay wax tey jii nii. Hmm. Euh, président kon Birima peut-être du nekk fi naan président Macky Sall euh, kii laa àndal. Hmm. mais pour wane la ni dafa am loo xam ne boo ko si ci si tey nit ñi dootuñu ko nangu. Hmm, on a fait un grand pas le peuple. peuple bi def na benn pas am na loo xam ne ñoo ko moom. te dootuñu ko delloo. amatul am na boo loo xam ne moomu gars yi moomatuñ ko jël nañ ko. Hmm. te kenn du ko delloo parce que kenn du ko seetaan maintenant pour man dañu naan bu ndox tuuroo an baax moo des. Hmm. su su su loo xam ne depuis quatre-vingt-sept mu am. Hmm. ba léegi aussi est-ce que même bu passé gestu nañu. mooy ñi fi muy président euh, Ablaye Wade. ak di président Macky Sall nañu xool aussi quelque que proximité bu ñu am ak. président Abdou Diouf wala ñenn ñu nekk ci régime ñu nekkoon ci régime président Abdou Diouf nan la ñu mën a def aussi ba nga xam ni. Hmm. ñu bàyyi xel ci loolu fi amoon bu fekkee am na injustice. aussi ñu proposer ñu ñu ñu réparer loolu parce que hmm. tout simplement comme ni ko professeur waxee li ci tas bëri na hmm. mais pour pour defar defe naa ni du du trop tard mu quoi tout le temps rek nit war na mun a aussi poser acte boo xam ne peut-être dina oyofal fii ak cent ans bu ñu ci waxee ñu ne tel président avait fait ça mais tel président a rectifié ça parce que pour man rectifier dara moom mooy tax mu gën a oyof ëllëg si si mémoire yi je pense que loolu il faut waaw ñun on l'a vécu en hmm. nañ ko hmm. partagé ko partagé ko vraiment parce que amoon nañ ñoo xamante ne hmm. euh, ay doomu policier la ñu bokkoon situation bi ñu gis socialement ce que saa fait on a vécu ça directement en étant jeune c'est vrai mais man lu may renvoyer rek mooy euh, loi lu mu war a njëriñ ak ni ñu ko appliqué. Hmm. xam nga il y a de cela trente ans euh, motul motul xam nga commissaire mu ngi wax léegi euh, euh, probité intellectuelle am. Hmm. daf koy imposer mu rappeler le statuts c'est-à-dire que malgré les dégâts. yi nga hmm. xamante ne am na les policiers n'ont pas le droit de manifester. tigi mais je dis trente ans après aujourd'hui on est en barki démb ci France. Hmm. barki démb France bi. Hmm. pendant trois jours la police a fait sa marche silencieuse la police française dafa dox. di ñaxtu parce que mais dañ ko gérer. c' des entités du peuple lañ bokk ci askan bi dañuy nooyu comme yow dañuy am les lois. Hmm. mais c' des citoyens d' abord avant d' être policier. tigi donc autant que les statuts ne leur permettent pas peut-être de s'exprimer mais parfois il y a des des inconforts wala voilà, des des, des mal-être yoo xamante ni. expression war nga ko mën a comprendre. Hmm. François Hollande n'a pas tapé il avait mais les, sur le plan du droit. Hmm. mënul leen tapé. mais il les a il a demandé à ce qu'on les écoute. Hmm. mu fàtt fa les statuts parce que c'est des trucs de circonstance. boo jógee la France qui est une référence en termes de droit nga ñëw fii Abidjan. yàggul dara. Ouattara les militaires quelque part. ont tiré même. pour dire que dañoo mettre il a demandé à ce que l'on les reçoit ba pare pour amélioration lu maanaam il faut hmm. interpréter parfois dafa am nga loi hmm. dañ ko defar pour muy régler xëy na ay problème hmm. mais waroo ko sukkandikoo di def ay jombe yoo xamante ne da ngay dem ba aujourd'hui xool préjudice boobu nga xamante ne jël nañu cette cette loi aveugle folle xamu noo koy tuddee xoolal incidence lignée boobu ñi nga xamante ne seen sëti tey xëy na ils ont ils sont dans d' situations yoo xam ne loolu moo ko créé loo xam ne ça pouvait se régler hmm. yàlla bu ñu amati amiin ay député yoo xamante ne qu'on s'en débarrasse mais à vie hmm, hmm. c'est-à-dire qu'on oublie que un président il encore il faut le ah rappeler il n'a que deux mandats moo dul def mandats am na luy ñëw am na yow say jarbaat am na say mbokk mm. y a des choses qui ne font pas mm. waaw waaw yàlla nañu yàlla may ñu sax mm. si li am ay député yoo xamante ne bu ñu toogee assemblée dañuy fàtte xam nga liggéey pour seen réew bande baa ngi bande baa ngi fi bande baa ngi fi prof mu ne leen bu ñu leen indilee ab loi bu ngeen koy voté ngeen xool seen diggante ak seen borom keroog mm-hmm. dafa keroog daf ka wax mm-hmm. ba aalu mm-hmm. daf ko wax ba ancien nekk allahu allahu allahu ba ñu coupé caméra bi Birima Ndiaye. maa ngi koy ziar di ziar doom soxna métu si sama xarit. Mm-hmm. pa góor bu baax la woon xam nga xalifa mm. wax dëgg yàlla man histoire boobu li ma ci xam ni tey laa ko xam sax. Mm. histoire la mooy du dégg nii rek. Mm-hmm. Mm. wax dëgg yàlla xaw ma ci lu bari. ndax boobu xale la ah non man maa nekkoon xale pas toi. si j'étais très jeune. adolescent adolescent alors. mag la woon nee nga.

Euh, te démb évité nga le maire de Sandiara. Mm. bon ma wax la. Mm. Khalifa gis nga da ngeen avant député yi. Mm-hmm. dañuy wax ki yoroon dossier bi. wax turam moom laa njëkkee. gis nga bu doon Sénégalais ko yoon dëgg du def loolu. c'est dëgg dëgg yàlliste la woon de même non fi nga jaar baax banaana bi nga bëgg a jël xaaj ko deux parties moom la ñu dul nangu très bien non bàyyi ko mu àggale bu ko yóbbu ci ay waxtu ak ñuy dab àggaleel patron sénégalais la woon ku ñeme daal ku ñeme daal noonu nga jox ko genre Charles Faye taal réew Charles sénégalais la non sénégalais ah si si si ba àggaleel Charles n'est pas sénégalais bon ma wax la benn affaire xam nga li ñu nettali fii ne loolu lañ def àll mhm. yéen police Sénégal méritewul loolu déedéet police bi ñu am mhm. waxuma la sax li ñuy def ci ci mais renseignement bi ñuy def ci réew mi tigi li ñuy liggéeyal nguur gi mhm. li ñuy defal sax régime bi ma bokkoon méritewuñu loolu bu doon te ni nañ méritewuñu woon loolu loolu moom bokk na ci waa so ñi ma jàpp ni yi gën a bon ci nguur parti socialiste ci la bokk loolu laa gëm tey bu amaatoon tey doo bokk ñi d'accord pour mu am gis nga dàq nit liggéeykat xam nga syndicaliste laa ci donc war naa xam loolu lu muy jënd ndax yàgg naa tey dossier ñu dàq nit ki yàgg naa tey dossier dàq nañ nit ba mu ñibbi këram man ma delloosi ko te laay wax ñu ngi may dégg gën nañ ak dàq nit ay nit ba ñibbi seen kër ma bokk ak ay nawla yu ànd yu ca bokk ba dellu si ñu liggéey xamoon nañ lañuy def lam nar a indi. donc liggéeykat. Hmm. boo ko dee xool moom rek xamoo luy liggéeykat. Hmm. classe boobu nduur gi xamuñu xamuñu affaire sociale. xamuñu ko ah, ah, non ah. non rek la xamuñu ko bu ñuy doo dañuy yaakaar rek <laughs> yow. professeur yow régler sa problème no fekk na professeur. li ko nit ñi ñëpp suñu salaire ñoo ci gën bi moo gën a tuuti lu muy lekk salaire am. dëgg la du sax pour moom moomu ko. dama ni moo ci gën a tuuti. da ko moomul nit ñi ñëpp ku ci ne fayu nga salaire. saam ko sa kër ba mu jeex nga dem lebi loolu rek la sa problème. mais doo ko mais moomoo ko. bu fekkee ne yow jaaroo ci loolu xamoo ko. da nga yaakaar ni rek loo dóor noonu la mais dama wax ne loolu ñu li ma ci bëggoon a xam rek mooy bu dee fa am ñu ci bokk ba léegi. te ñu ci jafe-jafe maa ngi ñaan la président Macky Sall mu réparer loolu. lu mu gën a gaaw. très bien mettre leen dans de bonnes ma fu mu toll xaw ma dossier bi. ba dee xam mais nag xam naa ni. vraiment su Sénégal. Mm-hmm. méritewul loolu. mbir ma bi ñu commencé ba tey daal ay transition yu baax rek nga may jox. kon lu bon la daan def ci. déedéet non non déedéet yow tamit ah. non dama ne transition yu baax rek nga may jox bi ñu tàmbalee ba tey. kon loolu émission ñetti at yëpp lu bon laa fi def. c'est pas dit ça xam nga la mooy problème. xam nga boo booy wax dara. da nga koy wax mu leer. Mm. c'est-à-dire que tey. Mm. xaw ma ban yoo moo ko matt. mais c'est-à-dire que taxawaay bi nga daan taxaw. ak tey bi nga taxaw. bokkul Sénégal seede na ko de. waaw léegi nag pour pour. parce que thème yi ñu doon dem. pour vu que thème yi ñu waroon a dem. waaw dañoo laal fi nga xam daa sooxe bu ñëwoon fu baax ngeen dugg ba mel daa baax <laughs> merci Birima. c'est simple. merci Birima merci bu suba bu suba 8 heures. waaw ngeen laal fi baax bëgg ko mën a mel dëgg baax ma. tu n'es pas cohérent. merci Birima alors Birima transition bi ma jox moom si laa bëggoon ñëw léegi nii mooy commissaire Sadio ñëwoo fi tey dans une logique revendicative ñëwoo fi tey pour revendiquer quoi que ce soit da nga fi ñëw tey par devoir de mémoire da nga fi ñëw tey pour li mu mujje nii. bu fekkente ne nii am na lu ñu fi mën a réparer lu fi desandi si xas néew. nañ ko réparer ñëpp nekk si jàmm ñu ngi lay déglu si ponk boobu balaa ñuy jeexal. waaw euh, di wax lii rek. Hmm. en fait euh, il faut voir aussi euh, au-delà des des faits patents. Mmh. des faits apparents. oui. Euh, peut-être que li ñu condamné policier ça a été un mais en fait le fond du problème. c'était les conditions dans lesquelles la police travaillait. Mmh. Et encore depuis la radiation ci la police perdrait son âme <coughs> xaw ma nu koy wax ci olof. Hmm. mooy li ma la wax léegi c'est meilleur la police a ah, hmm. dafa am jeexintal. Hmm. ba léegi ci wàllu sécurité. ba tey dafa ba tey dafa am répercussion ba léegi ba léegi y a des conséquences. au niveau sécuritaire. du ma dugg ci détail mais je donne dans un ordre de grandeur. en 87. Mmh. on était 6250 policiers. pour mmh. combien d'habitants en 87. le ratio 87. 6 mmh. on était 6 millions. 6 millions <coughs> aujourd'hui nous sommes millions de Sénégalais. non non pas le même nombre. moins que ça. moins parce que dafa moins que ça. ça veut tout simplement dire que pendant 30 ans. fanweeru at. lii mu alkaati yokkuwul benn yoon. benn alkaati yokkuwul si fanweeru at. oui au contraire ça hmm. ça ça a des responsabilités. mais am na ku may wax waxu policier municipal mais loolu loolu après loolu après dafa jàll. non amoon na réintégration après dañ coordination. coordination boobu mën maa ko jiite. Mm-hmm. coordination bi ma ko jiite. Mm-hmm. ñuy wax di responsabiliser di di sensibiliser di mm-hmm. informer et vraiment c' est l' de remercier la presse. parce que dafa am ay journalistes yoo xam ne tey jii ñu ngi dund ba léegi. mais joué na ba ma munee may rek ma seet si ñett wala ñeent rek. wax ata hmm. ku mel ni Mamadou Oumar Ndiaye. Mamadou Oumar Ndiaye. le grand monde waaw ku mel ni Pape Samba Kane. ku mel ni Abdourahmane Kamara hmm. Cheikh Tidiane Kassé ku mel ni Major Soxna Ndiaye gaañu na. Hmm. ku mel ni Pathé Mbodj Boubacar Diop. vraiment des gens yoo xam ne promotion. voilà promotion vraiment Pathé Mbodj. ils ont joué un rôle extraordinaire. dans la sensibilisation gis nga bi ñu créé coordination bi. Mm-hmm. man maa ko jiite. Mm-hmm. bi ma ko jiite nag y a eu yoo xam ne mënu ma ci dugg. parce que oo nañ ma fii. n'est-ce pas. Mm-hmm. Euh, man am na oto bu ñu piégé woon oto bu ñu explosé fële ñu convoqué ma bëgguñ ma ko jiiñ. ah demoon nañ ba ba may jàpp sax. Mm-hmm. ba finalement ñu bàyyi ma mais ñu jàpp samay nit naa. waaye munoo wax lépp la jigéen yi manifester. Mm-hmm. jigéen bu ñuy manifester aussi. sama soxna laa ne puisque man maa jiite yooyu yaa njëkk a wàcc si terrain bi. moom moo njëkk a wàcc seen mm-hmm. am na yu bëri yoo xam ne tey jii. xëy na bëggoon na moo tax ma bind livre bi. Mm. parce que si livre bi rek la mën a. alors am na lu la Charles bëgg a waxal. waaw mais tey regardez la caméra comme si c'est le président de la République. voilà par rapport au président. waaw je que il a posé vraiment des actes yoo xam ne ñun ñu ngi vous l'avez dit. président Macky d'abord il a eu à recevoir les policiers. Mm. retraités. c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'un président reçoit des policiers retraités. et ci biir des policiers radiés. mu laaj leen seen problème bi ñu ko waxee léegi. Mm-hmm. mu ne je vais faire créer une mm-hmm. commission. Mm-hmm. à l'époque il avait dit que effectivement les conclusions lui fussent rendues euh, dans les deux mois jusqu'à présent yàgg na mhm. moom la ñu bëgg aussi di ko ko fàttali mhm. di ko bantuwaat mhm. pour dire que sommes pas dans une logique de revendication mais toujours que la responsabilité est engagée parce qu'il y a la continuité de l'État donc nous sommes dans une posture de démarche disons de réhabilitation euh, euh, de conciliation lu mu ci nga xam ni defal profet et nostalgique. de, cette expertise. waaw une belle police c' était une Charles loo bëgg a waxal la police nationale. balaa ñuy de prier sur l'âme de mon euh, Ibrahima Faye ñu ko doon woowee gouverneur. Dieu ait son âme d'une élégance extraordinaire à la police de l'époque. Charles looy waxal. mon commissaire waxuma mais waroon nañ ko commencer par Cheikh Sadibou Ndiaye Dia. waaw waaw Euh, problème mu police bi élection deux mille euh, mille neuf cent quatre-vingt-huit hmm, na année boobu. plus jamais ça waratul am que des parce qu'on est chef d'État parce qu'on a la toute puissance ñu def lu ñu defoon à l'époque. 1986 hmm. bu ñu perte contre Côte d'Ivoire mon commissaire Sénégal recevoir benn coup sur la tête boo xamante ne kenn xam ko. Hmm. fan lañ décidé lu ñuy génnee nit ñi si biti ba di waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. ba ñëpp a génn si biti ne leen Sénégal qualifié na. Mm-hmm. à 18 heures affaire bi mm-hmm. wàccaat. ñu sauvé dëkk ba. du dëgg ko. commissaire 1986. à l'époque le partie socialiste n'allait pas bien du tout. police. parmi ab dafa l'une des polices les plus intelligentes. d'Afrique ñu egg buñ Afrique laa wax de. Sénégal la newoon. ay xale yu jàng enseignement supérieur. Hmm. yu bëri ñoom ñëpp la ndax. mooy li ma la wax la crème. la crème. ndax di leen jiin lu bëri nag mooy oto yu doon explosé ay yu demee noonu. léegi hmm. nag c'est une police d'opposition. Hmm. ñoom 87. fallait se débarrasser de cette police là à laquelle on n'avait aucune confiance. grave. mooy li mu wax rek c'était plus profond prétexte la woon. waaw faut l'assumer. damay leen ma démentir.

liir ngir ñi doon gàddaay ci yoon yu metti ak ngir képp koo xam ni soldaar nga bu tumuranke ci guddi gi and against the bomb bisit bi ñuy tàmbale mooy euh, maître Abdoulaye Wade ancien chef d'État mu ne euh, la ana lu tax mu war a bañ euh, bokk ci list bi ci list électorale bi di ñëw pour bu fekkente ne ni aw turam nekk ci mën naa dimbali wala mu indi ay militants nee fi mu nekk nii lu ñuy waxtaane la waaye euh, du lu ñu jëlagul daal si décision mais lu ñuy waxtaane la gula si biir euh, parti bi ak si biir oppo si biir coalition bi. waaw mais Khalifa euh, pour man am na loo xam ne kenn mënu ko dindi. Mhm. mooy li président Ablaye Wade représenté di ko mës a ci Sénégal. waay moo ëpp loolu. dëgg la professeur. man de wax dëgg yàlla maam. man man so uh, uh, du ma nawlu nga ñëw bokk ci ay liste parce que mu monument nga moomatoo sa bopp liggéey nga ci Afrique liggéey nga ci Sénégal loo xam ne wax dëgg yàlla ay liste ay élection yi ci uh, wees na la. Papis. waaw xool yegg si liste yi xool lii am ba pare a mun a wax. très bien Charles. impressionnant. impressionnant voilà impressionnant. alors euh, commissaire. no comment un bon militaire. man de damay ñaan yàlla. loolu yàlla bu mu am te dama jàpp ni bu président Macky Sall euh, président Abdoulaye Wade hmm. amee mbokk walla xarit bu mag ci moom dara parce que nag def na ci réew mi loo xam ne bu politique tax ñu yàq ko mooy li prof wax vraiment nit la koo xam ni même boo àndul ak moom xam nga ne def na lu baax ci réew mi il est au-dessus de de de l'Assemblée nationale Abdoulaye romb na Assemblée nationale du moroom Assemblée bis topp alors ñu ñëw si bis topp mooy euh, Aminata Touré ancien premier ministre si si mbiru euh, march kii bi lay wax marche euh, bi passé bu Y'en a marre manif ki rassemblement bi. Mm. mu ne opposition moom moo soxla woon ndimbal ngir organiser rassemblement. kii Aminata Touré moo nekkoon premier ministre. bu Sénégal mi ah, moom la ñuy wax mi Touré waaw Aminata Touré. je sais pas peut-être. non expression bi lañ gisul. man je l'ai vu mais gisuñu ko donc il faut nga wax wala Pierre ñëwaat at yow nga defaat si même expression pour ñu comprendre expression parole non non le plan serré sur Bouba parce que expression bi lay tonto vasi y ah waaw oui opposition bi de pour ñu gis euh, ni euh, opportunité ñu booloo ma nga fa <laughs> mais dañ fay dem ils sont partis ah. alors. waaw moom mooy prox ndool rek opposition moom. <laughs> prox lépp luy def pour perturber pouvoir bi la koy def c'est le discours d'en face. Charles. waaw les Sénégalais qui étaient là-bas ne sont pas tous de l'opposition. xaaral ma tëb commissaire rek. Birima. li wax ni moom laa ko waaj fii keroog ndax jox naa ko. nee topp bi si topp moom mooy Ousmane fay mooy secrétaire national bu pes de jant bi rénovation mu ne opposition bi euh, dafa mel ni dañuy au Sénégal ci instabilité politique maanaam ñu yanqal wengal gaal gi tuuti.

ndax sa gis-gis tey du la. mais prof. loo si xam. waaw dafa am rénovation PSD jant bi. waaw dafa bokkul ak euh, bëri. dafa fekk foofu la jógee bi rénovation waaw comme genre URD. waaw URD faram yooyu. <laughs> professeur bi bi ah, non non non waaw <laughs> dafa bees. waaw loolu la ok. bi. alors waaw mais bu dee bu dee wax fa dëgg yàlla nit ku jóg. Hmm. opposé wu. Hmm. benn leet naa génn diaboliser ko man xam fan la jëm bàyyi leen gars yi ñu war a opposé wu ñu war a kii def li Papis non je je passe. Birima je passe c'est la politique. dernier gis-gis wala ñuy tàggoo. mooy sa Sadiq kan mooy euh, président mouvement euh, pour le peuple euh, mouvement 2P Yamalé ah mu ne erreur la bu fekkente ni nguur gi dafay oyofal wala mooy tuutal mobilisation bi Y'en a marre amal. erreur lay doon buñ ko ndawalee wala ñu xeeb ko Papis. waaw mais comme la dernière fois rek moo je dis que le, même le pouvoir a besoin de ça compte pouvoir la sensibilité la il faut en tirer des leçons des conséquences et avancer. nous avons Bouba. choisi la démocratie. c'est normal que ñu taxaw di wax li nga xamante ni moom la ñu ah. c'est important. non tout est lié à hmm. boo delloo tuuti ci at yi ci ginnaaw rek nga xam ne. kenn waru ko def liñ hmm. loolu moom du bagage waaw moom daa mel ni kuy jox conseil nguur gi de parce que mu ne c'est une erreur du pouvoir de minimiser la mobilisation c'est vrai que nguur moom hmm. te bu ñaar ñett dong dajee sax hmm. ay citoyen da nga war a déglu bu fekkee seen jàngat mën nga ci indi saafara nga def Charles dama ne président sénégalais yi sonn nañu président sénégalais yi sonn nañu birima xam sa ay la birima jëlal xam nga fekk Sénégal la ngi am marche di am meeting di am opposition di am contre pouvoir di am loolu la réew di doxee. mon commissaire maa lay gërëm di la sant encore une fois nga jégal ñu ci ci guddee bi. Oh, j'espère que message bi jàll na. ñu ngi lay massawu ci mbooleem say anciens collègues. ñu yàlla jëlaat. yàlla neen yàlla dolli ay leer ñi fi des yàlla may leen gudd fan euh, professeur boo demee nga nuyul moo waa Mbacke du da war a dem Mbacke non Mbacke waa fa ñi dañ fay war a dem ni conférence waaw conférence donc nuyul ma waa Mbacke si pour la conférence euh, et voilà bien entendu bien entendu ah bien entendu ñu ngi leen di waaw ndokkeel. Mhm. suñu suñu mbokk chrétien ci ci. c'est ça euh, vendredi saint bi. dëgg la loolu tamit euh, mhm. xam nga réew mi. tigi voilà ñun ñëpp benn lañ. voilà mu ngoog mu ngoog donc donc di ko léegi nag émission bi. dafa am sama benn xarit di ko may xarit boo xam ne xam naa mi may seetaan xam na boppam. très bien donc ñu ngi màggal ñu ngi maggal ñu ngi la Trinité le Père le Fils le Saint-Esprit yàlla nañu yàlla sàmm bon week